saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa rétrospective bu arène bi ci atum fukki mbir ak ñaar yi gën fës ci arène bi moom la sunu làmb jukki le noonee la ko dippee fukki mbir yeeg ñaar mën nañ cee jàpp ñaari ndam yi ci rëg-rëg am 2019 de rëg-rëg loolee la journal ba xamle daal di cay tof succès contre Gris 2 et Sofiane Boukisu moom rëg-rëg ci atum bi daan na fi Gris daan fi Sofiane Boukisu MMA ñaari combat ci ñaari bëre yi wuti bu ci nekk mu tuuti li mu reñe borom taay si nga déçu la journal ba xamle moom Eumeu Sène ci atum ren bii la ko Modou daan nangu couronne ba ca moom bu dee Balla Gaye lion de Guédiawaye ci atum ren bii la daan Modou ñaareel bi jëllam belle victoire contre le Roc des Parcelles Assainies Balla Gaye 2 contre Modou moom Balla Gaye 2 ci atum ren bii la jox Modou Lo revanche am di koy daanaat waaye li ko Balla Gaye di daan ñaareel bi jëllam teewul moom Modou mu nekk presse sportive décerné ko meilleur lutteur moom Modou ñaari succès yooyu ci atum bi la ko am loolee moo waral journal ba dippe ko Modou Lo l'homme de wante bu ñu desandee ci Balla Gaye Modou ak Eumeu Sène dañuy gis ne 2-0 yépp ci 2019 ko réalisé Eumeu Sène ñaareel bi jëlam ren la ko ko Modou jox Modou it ñaareel bi jëlam ren la ko ko Balla Gaye 2 jox diggante Papa ak Fass ci atum 2019 la jeex Fass soor la sabre Papa mi à porte loolee la journal Ndiaye ci organiser ay combat ren la ci fësal boppam général Malika yi ren la jël trophée ANPS meilleur lutteur sans frappe ren la gis promoteur bu bees Tafa Diop mu ñëw tëgg combat royal noyé génn ca suñu ndaanaani lamb yi ren la génn àdduna Mor mi wuy ji boromam le juin ak Doudou Seck yaaykat mi génn àdduna le 13 décembre bii ñu génn journal ba xam ne bokk na ci li gën fës ci atum bi leneen la ca fës bokk na ci 10 yi ñu teg ci lutte sans frappe favori li war a xew ci at mu bees bee ngi war a tàmbali mercredi 1 janvier foofee ca téere gaar yi ak jax ma fas ca téere gaal gi jax loolee la nar a jox amateurs yi comme cadeau journal ba xam le ne depuis saison ba léegi li jax mise ci ay millions toll na ci 18 fukki millions ak juróom ñett tegal na ko mbër yi moom àllarba la fas yéene ubbi at mi foofee ca téere gaal gi journal ba rax ca dolli ne le ak le janvier waa Diouroup ñoo woote commune Pape Ndiaye ak Mbayang la bu dee Production ñoom ab tournoi la ñuy waaj organiser un tournoi dénommé 300 litres ci la bokk loolee la Production nas ci atum 2020 bi 300 litres ci mboolem écuries yi nekk ci Dakar la ñu fas yéene def ci février 2020 ñu dëgmal ci àllarba 1er bi beneen cadeau de bienvenue am na ca Iba Mar Diop Serigne Modou Niang moo fa woote diggante Mori Cargo ak Cheikh Super Diamano fa ñuy jeexale mooy lenn na adversaire am dal ci bopp loxo ba damm mu wër ko ndomb Alioune Seye Junior jàpp ci loxo bi mu daw la mu xam mooy boobee loxo ba metti na mënatut a résister rax ca dooli moom Tapha Mbeur ne Ama magu Alioune Seye Junior tooñ na ko ba ci kanamu yàlla yàq na sama lamb merloo na ñi ma àndaloon loolee la Tapha Mbeur xam le Alioune Seye ne ca tonn ne ko Ama Dia n'est dans l'enceinte Ama bi muy jóg di ñëw ci géew bi yàq lamb ji taxu ko woon laa li ma def nag Thierno Ka woona ma waxtaan nañ waaye CNG woowaguñ ma lii ma def keroog jubliwu ma ci yàq làmb Alioune Seye bëre na plus de 18 combat te yàqu ci benn kon li ni mel bu amee war nañoo xam ne njuumte la njuumte rek ka ma jàpp ak bëggoon a for laa bi moo waral lii jërë jëf mbokk yi ma nekkoon li gën a fës ci ëtt yéen bi ñu leen jox dig daje ëllëg incha allah